mu ne lislaam dafa bëgg boo dajalee nit ñi ngay gàttal maas ibnu jabal ben way dafa ñew kërëm julli gay jot mas armal jang fatiha dar baqara waji mom moom dagg jullim gi dadi julli julli bopam dem mu xam ne nag maas bu paree dana ko kalaame fa yonant mu njëkk ko fa bi mu ñëwee ne ko maas ne ko yaa rasulullah kii de dañ doon julli mu dagg julli gi def julli boppam yonent ne ko yaa def loolu mu ne ko waaw mu ne ko lu tax gis nga foofu lim fay jàngale sa ñaari jabar sa ñaari doom sa ñaari taalibe bu sa ñaari doom bu fa kenn njëkkee ne la diw lii la def bul sukkandiku ci waxam ji rek dal ko wala nga di ko mere ci xol boo ko bam ñew nga ne ko waxal bu waxe nga ne ko yow ya def lool waaw lu tax nga def ko waji ne ko ah mom dafa jang fatia ya. dal bakara te man xawma dana ko jexal wala du ko jeexal te man dama ami soxla ma dagg sama julli gi def man lu tolloog samay soxla yenentu ne gees maat maas ne ko da ngaa bëgg a nekk sonalekat ba muy ñetti yoon mu ne ku nit ñi dal mag ñu jaboot yaa ngi ci borom soxla yaa ngi ci te sunna yonantu ñaari xaaj la mokkal hadis bi xaraf yi tëri ko waaye bu jëf jotee doo ko koo xam ne moom bu jëf bu ak koo ne moom bu jëf jotee mën na koo jëfee waaye bu dara desul lu may tëri hadis ba mënu koo tëri su fekkee fokk benn nga cee xam amal mën a tëri jikko ji te doo mën a tëri xaraf ya bu mbir mi guddee ci mujj ga nañ gàttal l'islam jangale Quran, ci alquran jangale nako ci ay timis ñetti rakala pas parce que bay fekk nit ñi wàcc bees sonn yàlla su bar ñent la takusan ñent la timis ñett dee dana fekk ñu noppaleku moo tax mu delloo si ñeenti ya suba mu def ko ñaar suba mu def ko ñaar parce que dafay fekk ñee ngay gëmmentu ñii am wirta yu ñu yuñ doon wirta ñii sooxaale feebar ñëw ci jàkka ji ñii sooxaale feebar ñëw ci jàkka ñooñu la geesu ne kon nañ ko def ñaar alquran it gis nga saar yu njëkk yi ni guddee alquran it gis nga saar yu njëkk guddee waaye nu mu a jegee naasi rek muy gën di gàtt waaye nu mu a jegee naasi rek muy gën di gàtt loolu ñun lay jàngal bon fu pour ma nek fi di waxtan ak li yeneen bi wax ndax jotaay bi ay ñu febaranti ñu yakam ci mag ñaan ci xanaa kon dañuy def xulaasa rek ñu ngi gërëm iliman ji ilimaan yàllaa ko teg place yeneen tubi teg ko place yenentu benn waay ñëw na ne ko waxal ma loo xam ne suma ma ci nee ba dee dugg aljana mu ne ko doxal xelimaan kon ñu déggee ci ne ku ne xelimaan ba dee ci rek aljana nga jëm yenentu ne seen xelimaan yi ñoo leen di tinu yowmal qiyaam bu ne hiliman ji lay hoo ne bu allah qara karte bu ne hiliman ji lay hoo su ma ko laajee lu mu wax rek loola la koy ndokkeel ci xoyab bi mu xoyab day toog xam na ko bu yàgg ñu koy ndokkeel moom imaam ci toog toog di déglu xam-xam yoo xam ne xam na ko bu yàgg te loolu ci wiraase yenentu la bokk ndax daan toog Babacar di firi gént mu ngi toog kon ku la ko xam-xam fépp mun lay déglu parce que Babacar yenentoo ko xam-xam te mu koy déglu ndax lu Babacar xam ci yenentu la ko jëlee te xaajalut Seydina Aliyu daf daan xatte mu toog su paree rafetlu xatte ba loolu jàngale ne loo xam-xam xam xam naa lu ma loo xamut fa ne xam naa loo xamut daf ne ko kon waxal te bam waxee topp wax ja jikko yooyu kum ne ci yow déglu ku ne jikko yooyu kum ne ci yow déglu ku dana la yomb na ko ci kon ci khulasa ñuy gëreem gërëm waxam ji it tek na ko ci xam-xam xam-xam dana jural nit ki reey dana ko jural bàkku bu ko juralee rëy bu ko reey bu ko yalla baalut sawara la jëm yàlla nag balekat la tuddé nako bopam kon bu nit def dara rek nga dogg ci na safara la jox Musa Ibn Imran Musa ibn Imran gannaaw bu mu amé juroom ñett fukki at banoo Israayil a wër ko mu ne xam ngeen tay ci kaw suuf ko ëpp xam-xam ñu ne ko déedéet mu ne len man yàlla ne ko ahan ah. laxasal yow ak sa taalibe bi ngeen dem ca pegg géej ga laxasal yow ak sa taalibe bi ngeen dem ca pegg géej ga ngeen fa fekk koo xam ne boo waxee moom danga xam ne xam na loo xamul da ngeen fa fekk koo xam ne boo waxee ak moom danga xam xam na loo xamul Moussa mm, rasul la kii waliyu la Moussa xolomaaw yi dañoo weerante xadir ndax rasul la wala waliyu la Seexu Tijaan moo ñu ko leeralal mu ne waliyu la ndax ab yonent ay yonent daan nañ daje gaa ci jamono mu ne waliyu ndax ay yonent daan daje gaa ci jamono niki Iisaa ak Yahya ak ñenen waaye yàlla dana xamal ku ne ci ñoom ne ko place sàngam ka fa dégg mu yëng yëngatu sama yenentu la ab yenentu ku ko weddi da ngay xalaku da nga yàqule ñu ne bon fekkoon ne xadir la Seexu Tijaan moo ne su fekkoon xadir yenentu la yàlla dana xamal Moussa ne ko ka nga jëm ab yonent la te kon Moussa du ko ñemee contre ci dara. ba njëkkee ba xànd ay diir rek la xam ne kat man eh, kii xam na lu bañ dikkee ba xànd ab diir rek la. xadir ne ko yow ñett yi nga ma benn bu ne mas nga koy def. comprendre nga ne lu tax may xar gaal gi ndox mi di ci dugg nit ñi la. xanaa da fàtte sa yaay ba mu daajee kees ga. xanaa da fàtte sa yaay ba mu daajee kees ga. def ci bën bën sànni la ca mbex ma. ci mbex ma. yàlla ma wattu woon sa kees ga ndox ma jaaru ci bën bën ya nga lab. yàlla ma wattu woon sa kees ga ndox ma jaaru ci bën bën ya nga lab. est ce fi ba tey mën a wattu gaal gi. est ce fi ba tey mën a wattu gaal gi. Moussa ne ko tegi wax nga dëgg de. mu ne ko li ma rey xale bi nga naan ma da ngay rey bakkan bu deful dara. mu ne ko li ma rey xale bi nga naan ma da ngay rey bakkan bu deful dara. ah da nga fàtte ban te te te ba ba nga doxee fekk ñaar ñi leerante ban da nga pour fenkenn ka mu dee. xanaa da nga fàtte ba nga doxee fekk ñaar ñuy weerante nga pour feñ kenn mu dee. kooku lu mu defoon. kooku lu Moussa ne ko wax nga dëgg de. Moussa ne ko wax nga dëgg de. mu ma tontoor ne ma yaa ñàkk fayda tabaxal gaa yi te la dara. mu ne ko li ma kontoor ne ma yaa ñàkk fayda tabaxal gaa yi te la dara. xanaa da ngaa fàtte ba doomi Soaybu ya ñëwee la suñu bay ñu ne nga ñëw ya ñu la suñu bay nee nga ñëw ñu fay nga ne ñun dañoo bokk ci nekk boo xam ne luñ def yàlla tax. Moussa jox ko loxo. kon loolu lim lay jàngal. kon loolu lim lay jàngal. bëri na booy dal nit fekk li koy dalee mos nga koy def. bëri na booy dal nit fekk li nga koy dalee mos nga koy def. kon Moussa bi mu xéemee boppam gis nga fi mujj. kon Moussa bi mu boppam gis nga fi mujj. hadi Abubakar ibn al Arabi. haadi aboubakirin ibnu arabi xasaali yoo ko jàngal xasaali yoo ko jàngal bay ñibbi bim jàngee bay ñibbi dugg gaal gi duusi géej gi di dóor dugg ci gaal gi duusi géej gi di dóor mu ne dalal géej a nekk ci sa mu ne ko géej dalal géej a nekk ci sa kaw benn rab ne tëll yëkkati bopp kooku bi ko ma laaj la boobu comme géej nga. benn rab moo ne tëll ci géej gi yëkkati bopp bi ne ko ma laaj la boobu comme géej nga. jigéen bu buñ soppee jëkkëram dara dootul nit. jigéen dafa war a tënji wala dafa war a yedda. dafa war a tënji wala dafa war yedda. kon xam nga ne matul la sax. mu ne ko ah man ne loolu xamuma ko mu ne kon xam nga matul la dekk sax. mu dëpp dem ca xasaali mu dëpp dem ca xasaali laaj ko ko. laaj ko ko. xasaali yi ne ko suñ ko soppee xayawaan. xasaali yi ne ko suñ ko soppee xayawaan. kon deexagut fa fa war a suñ ko soppee jamaat. suñ ko soppee jamaat. kon deena dafa war a tënji. kon deena dafa war a tënji. taalibe ba dëpp duggaat ci géej gi. taalibe ba dëpp duggaat ci géej gi. rab wi génn ne ko xam nga masala ba. rab wi génn ne ko xam nga masala ba. mu wax ko ko mu ne ko kala ko xamal géej waaye yow deq nga. mu wax mooy géej waaye yow deq nga. loolu yëpp maa ngi ci ilimaan xoyof gum xam loolu yëpp maa ngi ci ilimaan xoyof gum xam imaamu Malick kat loolu jot na ko jàngale mu yàgg mu ne lu nit laaj ma wax ko imaamu Malick kat loolu jot na ko jàngale ba mu yàgg mu ne lu nit laaj ma ko benn sàmm dikk ko xaj kañ lay nekk mu kalaf benn sàmm dikk ko xaj kañ lay nekk mu kalaf Malick ne ko ba mu yàgg mu ne ko xaw waaye mu teg ci dërsu bi nag dugg xàll bi. waaye mu teg ci dërsu bi nag dugg xàll bi. ba dajeeg beneen sàmm. ba dajeeg beneen sàmm. ma mu ne ko xam nga ma mu ne ko dee mu ne ko man maay Malick suñ daara bi nekk Madinatu Munawwara yëpp xam ko. mu ne ko ndax xam nga ma sàmm bi ne ko mu ne ko man maay Malick ki nekk ko. dañ maa laaj ko mu ne ko a a ko xam mu ne ko loola mooy mu ne ko xaj kañ lay nekk mu kalaf mu ne ko loola mooy mu ne ko xaj kañ lay nekk mu kalaf mu ne ko fii mi saw de ngollee ko ne ko mu ngay saw di ngolli mu kalaf bu saw day jonkan maa ngi ñëw maa ngi ñëw nettali masala bi. waaye xam-xam dafa baax limaan bi dafa waxee xam-xam. waaye xam dafa baax limaan bi dafa waxee xam-xam. dafa ñëw ci benn jaamia. imaamu Malick dafa ñëw ci benn jaamia. gannaaw dafa aaye ku julli takkusaan naafila. gannaaw bu mu jullee takkusaan te moom ngiram dafa aaye gannaaw boo jullee takkusaan naafila mu ñëw toog rek benn xale ko góor gi doo jóg sax julli ñaari rakk mu ñëw rek benn xale ne gi doo jóg sax julli ñaari rakka mu jóg kabar julli ñaari rakka mu jóg waa jàkk ji dikk ne ko déet waa jàkk ji yow yaa wax ci sa ngir ne ku saan takkusaan waratulaay naafila lu tax ngay naafila. yow yaa wax ci sa ngir ne ku julli takkusaan waratulaay naafila lu tax ngay naafila. mu ne damaa ragal dugg ci aaya bi. mu ne damaa ragal dugg ci aaya bi. fa yàlla de waxee ci suratu mursalaat ne ay gaay leen dugal safara buñ naan leen julli leen ñu ne duñ julli. mune dama damaa ragal du dugg ci aay bi fa ay waxe ci suratul mursalat ne ay gaay ni buñ ne len julli len duñ julli. ñu ne ñoo waxal seen ñu tontu ne julli wuñ. ñu tontu ne julli wuñ. julli wuñ goga moo len dugal safara. julli wuñ mo moo duggal dugal safara. dama bañ dugg fofu dama bañ dugg foofu. ñu ne ko wa bon fo sukkandiku. sa wax ji noo koy def. ñu ne ko waaw ban foo sukkandiku sa wax ji noo koy def. ñoom mbirum saafi yi ñoom daganal nañ naafila ci gannaaw takkusaan foofa laa sukkandiku waxam ja formal ko def. mu ne mbiram sa ngiram saafi yu dagal nañ nañ naafila ci gannaaw takkusaan ñooñu laa sukkandiku waxam ji def ko. xam nga bon xam-xama ko def loo xam-xama ko setal. xam nga bon xam-xama ko def loo xam-xama ko setal. imaam li mu wax yëpp xam-xam la. imaam li mu wax yëpp xam-xam la. ñu koy ndokkeel. ñu ngi koy ndokkeel ci loolu bu baax. boo gisee mën na ko demal julli yonent moo ne bu kenn jiite kenn ci palaasam. boo gisee mën na ko demal julli yonent moo ne bu kenn jiite kenn ci palaasam. bu kenn toog ci tiraangay kenn. bu kenn toog ci tiraangay kenn. hadis boobu laa jëfandikoo moo tax ma ne ko faw yaay jiite. hadis boobu laa jëfandikoo moo ko faw yaay jiite timis. kon ñu koy ndokkeel di ko siyaare. kon ñu ngi koy ndokkeel di ko siyaare. ñu ndokkeel mag mi waxoon wax yi. joxe yu am maanaa ñu ngi ndokkeel man mii waxoon wax yu rafet yu tedd yu am maanaa yi waxal ñu ci bàyyi xam-xam boo xam ne comme ni ko Régis Jong waxee man de wax na fi loo xam ne mosuma koy dégg ci bàyyi te dëgg la waxal ci bàyyi xam-xam yoo xam ne comme ni ko Régis Jong waxee wax na ci bàyyi loo xam ne man mosuma ko dégg te dëgg te it am na njëriñ te it am na njëriñ li mooy tegtale nag li muy tegtale nag. mooy xolam bi ko setal. mooy xolam bi ko setal. parce que yonent ku xam ngëneel fa yàlla mooy xam borom ngëneel te nangul ko. parce que yonent ku xam ngëneel fa yàlla mooy xam borom ngëneel te nangul ko ko. bu toogaan Babacar a koy toogee ndeyjoor Omar toogee ko càmmooy. bu toogaan Babacar a koy faree ndeyjoor Omar faree ko càmmooy. Ali yu toog ci def muqaabala. Ali yu toog fii def muqaabala. muqaabala surru bu rëy ci ne. muqaabala surru bu rëy ci ne. des nag Abubakar ñëw dëkk fi nga xam ne lii ñëwagul. bis nag Aboubacar ñëw ndekk fi Aliou ñëwagul. mu toog fi daan toog pour demande maqaama. mu toog fi daan toog pour demande maqaama bi. demandul maqaama bi sirru maqaama bi la bi la demande. sim tuuti ñu seen Aliou ngay ñëw rek mu jóg di ko toog fi mu doon toog. sim tuuti ñu seen Aliou ngay ñëw mu jóg di ko toog fi mu doon toog. askay borom ngëneel mooy xam borom ngëneel. yeneen tu bi naa askay borom ngëneel mooy te nangul ko ko. ko. <laughs> nit dana xam ngëneel ci nit waaye sa xol bi bañ nit dana xam ngëneel ci nit waaye sa xol bi bañ ku yàlla dindi jàngoro boobu foo fekk ngëneel danga ko mën a wax ku yàlla dindil jàngoro boobu foo fekk ngëneel danga ko mën a wax ñu ngi koy ndokkeel ñu koy ndokkeel eh, li wax ne bu ngeen solee yëre yu rafet na fekk seen jabar yi jox ngeen leen la ca war. ñim wax ne bu ngeen solee yëre yu rafet na fekk seen jabar yi jox leen li ci war. yonentu nee na ibda bi man taoolu. yonentu nee na ibda bi man taoolu. soo demee bay xam njëriñ njëkkeel ñi nga njaboote. soo demee bay xam njëriñ njëkkeel ñi nga njaboote. kon góor gi wax léegi ñu ngi kon góor koy ndokkeel bu baax. barke ngi ànd ak mag yenentu daf ne albarakatu maal akaabiri barke ngi ànd ak mag ndokk bi mu seede yu rafet yi ndokk bi mu seedee seede yu rafet yi yi dañoo wax ne téere yi dañoo wax ne benn waaye dafa gént yowmal xiyaam taxaw benn waaye dafa gént yowmal xiyaam taxaw ñi borom ñeenti ngir yi yàlla convoqué leen ñeenti ngir yi yàlla convoqué ñu teew mu ne leen waaw sa suma diina ci moo wàccee ko muy benn alquran benn lislaam foo tusubaar tusubaar la ca Màkka ci Dakar fu ne takkusaan ngeen dëkk yéen xaaj xaajee ñu naan ngiram maaligam ngiram saafu mu ne leen yéen sama diina ji ma wàccee ko muy benn ngeen nekk yéen xaaj xaajee ñu naan ngiram maali ngiram saafe yu te tusubaar benn takkusaan benn la ana ñan mooy seen seede ne maa ma maa santaane xaaj xaaj ana ñan ñooy seen seede ne yéen jaaye na teg jaaye na teg ba muy ñetti yoon ba muy ñetti yoon Amadou Hanbal ne ko yaa ñu waxoon ne yaa ñu waxoon ne yoma teewee ma teew ngeen teew kenn du wax lu mooy maa la may ndigal si yowmal xiyaam teewee ma teew ngeen teew kenn du wax lu maa la may ndigal mu ne ko may naa la ndigal waxal mu ne ko may naa la ndigal waxal ne a mu ne ko yàlla kuy sa seede ne ñun fañ xaaj xaajee sa diine. mu a ko yàlla kuy sa seede ne ñun fañ xaaj xaajee sa diine ji. mu ne ko sama malaaka yi. mu ko sama malaaka malaaka yi xas ñu ci yow ba xànc ñu naan attajalu fiha man yusidu fiha malaaka yi xas ñu ba xànc ñu fi yow naan attaja attajalu fiha man yusidu fiha wa yusiku dima wa yusiku dima foofu mën nañu seede foofu mën nañu seede bu rek su waxaatoo fay wax lu indil affaire rek indil ñu beneen seede indil ñu beneen seede yàlla ne ko seen cër yi boobu. yàlla ne ko seen cër yi boobu. mu ne ko ñun nag bañee ne àdduna cër daanut wax. mu ne ko ñun nag bañee ne àdduna cër daanut wax. suñ dikkee ba àllaaxira cër yi wax. suñ dikkee ba àllaaxira cër yi wax. yaa leen dugal wax yaa dugal ci ñoom wax. yaa dugal ci ñoom wax. lañ jàngoon nag mooy seede buñ la ko saxee seede ba wérut. lañ jàngoon nag mooy seede buñ la ko saxee seede ba wérut. indil beneen seede. yàlla na kon man maay seede bi boobu. yàlla na leen kon man maay seede bi boobu. Amadou Hane bal ne ko déet. Amadou Hane bal ne ko déet. ñun liñ jàngoon. ñun liñ jàngoon. xattekat xattekat la doo seede keneen waaye doo xatte doo seede ñun loolu jàngoon. xattekat moom xattekat lay doon waaye doon xattekat doon seedekat loolu liñ jàngul ko. yàlla na affaire bi daal jeex na tribunal bi jeex na jóg bi daal jeex na tribunal bi jeex na jóg leen dugg moo ko indi. ñu ngi ndokkeel suñu xarit suñu soppe bii toog di dem ak man. ñu ngi ndokkeel suñu xarit suñu soppe man. ku baax yàgg nañ koy tuddee lu baax. ku baax yàgg nañ ko tuddee lu baax. Aliyu na bi Taalib tuddee nañ ko teen. Aliyu na bi Taalib tuddee nañ ko teen. parce que mayekatu ndox la woon. parce que mayekatu ndox la tuddee nañ ko juma. Omar ibn tuddee nañ ko juma. Ndeye Ayisa tuddee nañ ko tuddee nañ ko jàkka. képp ku baax ci koñ rek lu baax dana xew ñu tuddee la ko. képp ku baax ci koñ rek lu baax dana xew ñu tuddee la ko. ñu ngi ñu ngi dëkk ci Oustaz Abdourahmane Cissé. ñu ngi dëkk ci Oustaz Abdourahmane Cissé. mboolem lu ko xale yi tagg dëgg la. sëriñ nay tagg saa waaye taalibe it nay tagg sëriñ. sëriñ nay tagg taalibe waaye taalibe it nay tagg sëriñ. bu yàlla di sëriñ yónantu taalibeem la. bu yàlla la. tagg na ko. tagg na ko nabiyul ummi yi nabiyul ummi yi allati yajidoonahu maktuban fi fi tawreete allati yajidoonahu maktuban fi tawreete tel tel tel tel ba mu jeex tel tel tel ba mu jeex nii la mel naa la mel naa la mel nii la mel naa la mel naa la mel kon sëriñ tagg na taalibeem foofu kon sëriñ tagg na taalibeem foofu yonent yi tagg na yàlla yonent yi tagg na yàlla saaba yi yonent bi tagg na leen. saaba yi yonent bi tagg na leen. waaye ñoom it tagg nañ yonent. waaye ñoom it kon sëgg leen ci lool da leen ci continuer. kon sëgg leen ci lool da leen ci continuer. taalibe eh, balaa jëriñu. taalibe balaa jëriñu. dafay gëm fi ko yàlla dikkee ba mu mën a dugg ci yàlla. dafay gëm fi ko yàlla dikkee ba mu mën dugg ci yàlla. Oustaz Abdourahmane nit ku baax la. Oustaz Abdourahmane nit bu baax la. wali yi ñaari xaaj la. wali yi ñaari xaaj la. waliyu zaati waliyu sifa. waliyu zaati waliyu sifa. waliyu zaati mooy koo xam ne bi mu ne bëreet comme imam mi ak mag ma la doon wax. waliyu saati mooy koo xam na bi mu ne bërëb comme imaam mii ak ma ne doon wax. mosta jaar ci tolof tolofi xale. mosta jaar ci tolof tolofi xale. jàng alquran. jàng alquran. liggéeyal way juróom. liggéeyal way juróom. liggéeyal sëñ daaraam. liggéeyal sëñ daaraam. ba xëy nekk hilimaan. ba xëy nekk hilimaan. wala mu nekk magi koñ bi. wala mu nekk magi koñ bi. kooku mooy waliyu saati. kooku mooy waliyu saati. mosta ci ay dëng dëng. mosta ci ay dëng dëng. li lay xamal ne loolu bëriwut. li lay xamal ne loolu bëriwut. Babacar de mosu cee jaar. Babacar de mosu cee jaar. Aliyu ibn Abi Talib mosu jaar ci yooyu. Aliyu ibn Abi Talib mosu jaar ci yooyu. waaye yéen ñëpp xam ngeen ne Omar ibn Xataab jaar na ci. waaye yéen ñëpp xam ngeen ne Omar ibn Xataab jaar na ci. kon waliyu zaati. kon waliyu saati mooy koo xam ne moom ak yàlla directe yàlla ko defar mooy koo xam ne moom ak yàlla directe yàlla ko defar fu ko yàlla jàng ah, fu ko mango nim neexee mango nim neexee banaana nim neexee banaana nim neexee kenn bokk kenn ko togg wàcce ko mu ñor yàllaa ko togg wàcce ko mu ñor loolu mooy waliyu saati loolu mooy waliyu saati waliyu siffa siffa mooy yàpp mooy yàpp. yàllaa ko defar de. yàllaa ko defar de. waaye balaa neex. waaye balaa neex. keneen bokk ca. keneen bokk ca. li yàlla liggéey muy yàppoo soo ko lekkoon ñu daw la. li yàlla liggéey muy yàppoo boo ko lekkoon ñu daw la. waaye foog nit jàpp ko. waaye foog jàpp ko. boole ko diw. boole ko diw. boole ko ñebar ñebar. boole ko ñebar ñebar. nga mos mu neex. nga mos mu neex. kooku mooy waliyu yoo xam ne. kooku mooy waliyu yoo xam ne. ja jaatoon na ci ay jubur jabar. jaatoon na ci ay jubur jabar. ak yàlla mu yàlla mu defar loolu dikk na ci alquran. loolu dikk na ci alquran. ay alquran ayatu zaati dafa am. alquran ayatu zaati dafa mooy boo xam ne. ayatu si. zaati. mooy boo xam ne. qul huwa allahu ahad. lépp yàlla la ci njëlbeen ci mucc ba abat. lépp yàlla la ci njëlbeen ci mujj ba abat ayatu sifaat. ayatu sifaat. mooy in antum ila taksibuun. mooy in antum ila taksibuun. xeefeer si ne yonent yéen ñëpp ay fenkat ngeen. xeefeer si ne yonent yéen ñëpp ay fenkat ngeen. xam nga njëlbéen wax ci baaxul. xam nga njëlbéen wax ci baaxul. waaye bi ko yàlla toggee. waaye bi ko yàlla toggee. def ko ci ñeexam mi. def ko ci ñeexam mi. léegi alquran la. léegi alquran la. soo ko jàngee xam tuyaaba. soo ko jàngee xam tuyaaba. kon njëlbéen nga baaxutoon. kon njëlbéen nga baaxutoon. waaye mujj gi baax na. waaye mujj gi baax na. loolu mooy ayatu sifaat. loolu mooy ayatu sifaat lépp ci nit yàlla yi nag ayatu sifaat la lépp ci nit yàlla yi ayatu la nit ku baax la nit ku baax la nit gan ci indi fa tiranga yu rëy nit yàgg naa gan ci indi fa tiranga yu rëy yenentu gan la madina yenentu gan la medina yaayam dëkkut fa bayam dëkkut fa yaayam dëkkut fa bayam dëkkut fa nga baax baax fa indi waaye gis nga baax baax yam fa indi ku xam loolu ci yàlla rek foo dëkk doo fa gan it teroon nga indi fa ay baax baax ku xam loolu fa yàlla it foo dëkk doon fa gan nga indi fa ay baax baax kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax ñu ngi ndokkeel xale yi ñu ngi ndokkeel xale yi mu am na luñ fi neexoon parce que am na luñ fi neexoon duñ ci mën a indi kilifa yi waxuma laa ñuy wax lu baax duñ ci mën a indi kilifa yi waxuma laa ñuy wax lu baax maa ngi gërëm xale yi kon maa ngi gërëm xale yi xale xale ku ko yàlla daf ko garaate ku ko yàlla daf ko garaate ci àdduna ak ci àllaaxira ci àdduna ak ci àllaaxira ci àdduna ci àdduna ci ci àllaaxira wildaanun muxalladoona wildaanun muxalladoona bi ak bi ak waabin bi ak waabin ba mu jeex ba mu jeex tudd na xale àllaaxira daf ko tagg tudd na xale àllaaxira daf ko tagg tudd na xale àdduna fa ko tagg tudd na xale àdduna fa ko tagg waatee naa uh, uh, uh, hukkuma sabbiyan waatee naa hukkuma sabbiyan innahum fityatun aamanoo bi rabbihim innahum fityatun aamanoo bi rabbihim fa basarnaahu bi xulaamin halim fa basarnaahu bi xulaamin halim fu mu tudd xale rek daf koo tagg. fu mu tudd xale rek daf koo tagg. kon yéen it. kon yéen it. xale yu góor yi xale yu jigéen yi. xale yu góor yi xale yu jigéen yi. ñu ngi leen di ndokkeel ci li ngeen ànd ak Oustaz Abdourahmane. ñu ngi leen di ndokkeel ci li ngeen ànd ak Oustaz Abdourahmane. feeg yéen a ngi ànd ak moom moom. feeg yéen a ngi ànd ak moom. di ko di ko di ko di ko déggal. da ko déggal. muy génn ci yéen ay kéemaan rek. muy génn ci yéen ay kéemaan rek. taalib sëriñ eh, télé la. sëriñ télé la. taalibe commande la. taalibe commande la. film bi ci biir télé bi commande bee koy génne. film bi ci biir télé bi commande bee koy génne. waaye ci sart nag. waaye ci sart nag. commande bi day def direct jubóog télé bi. commande bi day def direct. jubóog télé bi. waaye boo moyee tuuti. waaye boo moyee tuuti. loo bës bës dara du génn. loo bës bës dara du génn. booy dëngoog sa sëriñ mënoo génne ci moom dara. booy dëngoog sa sëriñ mënoo génne ci moom dara. li jaaba yee ca xol ba boo ci jub mu fay. li jaaba yee ca xol ba boo ci jub mu fay. yéen a ngi dégg li ma wax. ndax ñu ngi dégg li muy wax. xabool yee ca xol ba boo ci jub mu fay. xabool yee ca xol ba boo ci jub mu fay. kon nag daay ma nekk leen commande bu dékkërli ak télé. kon nag daay ma nañ nekk commande bu dékkërli ak télé. ñu gërëm monsieur Diongue ñu ngi gërëm monsieur Diongue bi te rafetal ko ci anam bu ne. kon nag place Bango. kon nag place Bango. te alxames la ñuy def tawsion. alxames la ñuy def tawsion. kon war naa ñibbi ci guddi kon war naa ñibbi ci guddi gi. incha allah incha allah. àllarba ji ma endu ci këyit yi. àllarba ji ma endu ci këyit yi. su fekkoon mën naa fanaan fii. su fekkoon mën naa fanaan fii. danañ continuer yokkal leen waxtaan. danañ continuer yokkal leen waxtaan. waaye lii ma wax fi lim gàtt gàtt. waaye lii ma wax fi lum gàtt Moussa ibn Imran. Moussa ibn Imran. ba waxee yàlla ne ko dénk ma. ba mu waxee yàlla ne ko dénk ma. yàlla ne ko xamal cofeel ci sama mbindeef yi. yàlla ne ko xamal cofeel ci sama mbindeef yi. rek jeex. rek mu jeex. Moussa jóg dem. Moussa jóg dem. yàlla yebal Jibril ak Mikaayil leen toppal leen ma Moussa ba xam li ma ko wax dana ko jëfee am. yàlla yebal Jibril ak Mikaayil ne toppal leen ma Moussa ba xam ko wax dana ko jëfee wala déet. Mikael soppeeku picc mu tuuti. Mikail soppeeku picc mu tuuti. Jibril soppeeku ceeli. Jibril soppeeku ceeli. dàqe ko dàqe ko. picc mi daw dikk na parax ci luppi Moussa yi dal fi. picc mi daw dikk na carax ci luppi Moussa yi dal fi. ne ko xettali kii daf ma bëgg a xañee. ne ko xettali kii daf ma bëgg a xañee. ceeli bi ñëw ne ko kii sama warsag la yàlla ma ko jox. ceeli bi ñëw ne ko kii sama warsag la yàlla ma ko jox. Moussa ne ko yow yàpp nga bëgg rek wala picc ak lu mën a xew picc nga bëgg. Moussa ne ko yow yàpp nga bëgg rek wala lu mën a xew picc nga bëgg. mu ne ko man kay su ma amee loo mëdd sama xiif bi baax na. mu ne ko man kay su ma amee loo mëdd sama xiif bi baax na. mu ne ko ma dagg ci sama jëmm ji jox la mu ne ko waaw waaye sa lupp bi laa soxla de. mu ne ko ma dagg ci sama euh, jëmm ji jox la mu ne ko waaw waaye sa lupp bi laa soxla de. mu ne ko d'accord. mu ne ko d'accord. séeréer bi nag ah sëpp dëgg sax laa soxla. téeli bi ne ko ah soppadam bi sax laa soxla. mu ne ko d'accord mu ne ko d'accord naa. ah sa ñaari bët yi sax laa soxla. ah sa ñaari bët yi sax laa soxla. mu ne ko ayoo. mu ne ko ayoo. mu ko tigi yow la nga jëlee fële léegi jëfandikoo nga. mu ne ko tigi yow la nga jëlee fële léegi jëfandikoo nga ko. xam nga aarif dina dégg waxtaan woo xam ne war na koy jëlee waaye bu dikkee mu mu mu sànni ko. xam nga aarif dana dégg.